banlieue bi tey yeewoo ci nañu tiis ak naqar mu doon lu doy waar mën naa ni jàmm gën kenn nelawul kenn lekkul kenn naanul ndax ku foor moo jóge ci ñoom muy Fodé nekkoon ndaw boo xam ni tolloon rekk ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar walla ñaar fukk ak juróom-ñett nekk xale bu ndaw doon it yaakaaru famille Fodé doon koo xam ne ku jàmbaare la doon koo xam ne ko ñëpp bàyyi xel la amoon tur lool moo ne di nekkul woonu boykat du woon fecckat tey du woon mbërub làmb waaye xareñoon na lool ci wàllum làmb ndax ku gis Siteu rek gis ki nga xam ni mooy Fodé ci wetam xam naa ni jàmm gën di tàng na lool temps yi te metti na it li ko waral du lenn lu dul safoor yi nga xam ni dañuy dawal ak ci anam yoo xam ni te ginewul ba tax na moom Fodé mën naa ni tàggoo naag ñu bari ndax am na benn audio bu muy wax ak benn xaritam nan ko jàmm rek ci yow maa ngi dem te ñëw ñu gisante toog waxtaan ba mu ca jógee jàdd na ca jaaykatu caakri ba muy toog chaque jour kaf ak moom reetaan mën naa ni daa continuer rek tata bi daat koy mbëkk moom Fodé ca sansa la daal di ñàkk bakkanam jàmm gën nag xale yaa ngay daw di taali oto jàmbur ya bis ba moom jeex na tàkk dañ kaa taal ba mu tàkk jëppet benn preset nanguñu mu filmer kii di Fodé kon lu fooroon la ci waa jàmm gën Pikine Caaroy Yëmbal ñépp ràññee woon jëmm ji di Fodé mu doonoon boroom xol bu rafet doonoon xale bu góor bu baax bu amoon ak ñépp jàmm waaye bañoon ku néewal doole moroomu nitam moom bu la fekkaan ngay néewal nit doole dana la jaay bakkanam waaye nekkoon koo xamit mën nañoo seere ci moom ni lépp lu mu yoroon ci poosam nit a ko bàyyi ci moom bëggul ko xiif bëggul ko sonn kon Fodé mbokk King Production yëpp ñoo ngi àndandoo di jaale famille Fodé yëpp rawatina man mi nga xam ni tey wax ci moom doon na ma jafe lool moo ne de tàggu na ma soog a dem ndax bu yàggul dara ñëw na sama kër ñu reerandoo kon askanu King Production yëpp ñoo ngi ànd ak mbokki Fodé naqar bii tey ñaan yàlla suuf woyof ci kawam ci barke Seydina Muhammad aduna heli wali jali